abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV Euh, dal leen ak jàmm mbokk internet yi gannaaw nag ba kii di président de la république jëlee ay décision rek mën nañ kii di première dame Marème Faye Sall euh, maire ba futt nag la daal di def ni ki démb ci ay image yu nga xam ne rek jot nañ koo gis gannaaw ba ñuy négocier euh, ci ne kat moom mii di Macky Sall dina daal di poser candidature am ci élection 2024 yi nga xam ne rek moom la ñu dëgmal waaw wala déet mën nañ ne dënn yi sax commencé woon di tàng ci ñenn nag ñi nga ci parti APR mën nañ ne nag loolee moom moo waral sax moom mii di première daam nga xam ne nag bokkoon ci ñi nga xam ne rek bëgg nañ mbir mi la mel daal di am eh, ci góoram gi nga xam ne rek moom mooy président de la république wante kat mën nañ France daal di xaddeen comme niñ koy faral di waxee eh, tax nag ñu daal di gàntal lépp lu nga xam ne rek troisième candidature kii di président de la république la eh, ci bokkam ci élection yi nga xam ne rek moom la ñu dëgmal mën nañ moo waral mu daal di fasu kanam rek moom mii di Marème Faye Sall jëmale ko nag ci ñi nga xam ne rek ñoom ñooy ay cadre yu APR gannaaw nag waxtaanu biir néeg ba nga xam ne rek ña ngi doon amal ci lépp loo xam ne rek dafa jëm ci ay décision yoo xam ne rek dañ koy jël eh, ci candidature ki nga xam ne rek moom mooy seen leader di président de la république bu Sénégal di eh, ki nga xam ne rek mooy président Macky Sall.